préciser ñun woowuñu kenn fii lañu taxaw ñoom ñoo ñëw waxal seen bopp. Ousin wàccal tuuti Ousin wàccal mi. dañuy préciser dañuy préciser waxuma ak yéen quoi en fait. waxoon na la fois passée moom lañ moom lañ mujjee xam nañ ko bu baax quoi. mais ça dafa am la ñuy ñu noonu mais dañuy bàyyi la waaw ñu ngi wax as euh, ñu ngi wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa di ko wax Sénégal yëpp di wax itam xasbunallahu wa ni'mal wakiilu ni'mal mawla wa ni'mal yàlla subhaanahu wa taala eh, moo wax ne képp ku gëm yi kuy woote ne gëm yàlla dinaa la nattu ci suuratul ankabut verset premier daf ne alif a xasiba annaasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanuun wa laqad fatanna alladina min qablihim fala yaclamanna allahu alladina sadaqu wala yaclamanna alkaadibin yàlla nee na ndax nit ñi dañuy wax ne gëm nañu te duma leen nattu nee na dinaa leen nattu dina waaye xam naa ñi nga xam ne ñoo dëggu su ma leen nattu ak ñi nga xam ne dëgguwuñu kon fa tabaarakallaahu comme niñ ko waxee woon ci njëlbeen lii nattu yàlla la duñ ko accuser kenn yàlla lañ koy nattu ñun dépendre ci état dépendre ci kenn yàlla rek lañu gis te it yàlla la ñuy dund su ko defee loolu xewoon na xare badar yàlla wax yonent bi salaa salaam ne ko nit ñi dajee nañ pour kompaloo la dajee nañu pour kompaloo la pour nga ragal leen waaye bu leen ragal ragal ma man yàlla kon ñun yàlla la ñuy ragal yàlla lañuy ñuy sujootal yàlla la ñaan ñaan kudul yàlla jaam nga comme ñun kuñ tooñ nag ba yëg na tooñ nañ la su laajee ñu jéggalu dañ lay jéggalu ku ñu tooñul nag tooñu la la waaye xam nañ ne lu am yàlla moo ko dogal li des nag mooy famille bi yëpp ñu ngi sant yàlla di gërëm yàlla xam ne boog lu ko lu ko neex def waaye lu mu def itam moo gën lii moo gën ci Serigne Cheikh daañ ko nangu avocat yi daañ def seen appel après lu luñ ci teg ñu xam ne teg nañ ko ci waaye daal ñun ñu ngi sant yàlla di wax nee nag borom xam-xam yi nee nañu man faala ma saa man faala ma shaa laqiya ma saa mhm. ku def li la neex dajag li la naqari waaw verdict bi dégg nañ ko mm-hmm. euh, comme nee nañ euh, arrêté nañ ko tëj nañ ko trois mois mm-hmm. avocat yi neen daañ def appel ñu ngi leen di déglu ci loolu waaw trois mois ferme mm-hmm. ñu ngi leen di déglu ci loolu ak amende cent mille francs loolu yomb na yàlla waaw am def ko tënk rek wax noonu daf ko maanaam aha waaw ah? ah ku ànd yàlla doo wéet mhm. ñun yàlla lañu ñu àndal ku ñu topp mhm. yàlla lañu ñu àndal ku ñu toppul yàlla lañu ñu àndal mhm. maa ngi koy wax léegi alaaji daawda ma nekk bu fekkoon benn nit moo fi nekk ma ñaaral leen sax man jàpp naa ne wéetuñu waaw kon nag nañ delluwaat ci suñu daara nañu delluwaat ci suñuy deru delluwaat ci suñu jaamu yàlla bàyyee suñu bopp ak suñu borom incha allahu taala. rëcc amu ci parce que kuy def li la yàlla sant. Mhm. amul looy rëcc. Mhm. yàlla moo wax yonent bi ne ko yow Muhammad maa lay yónni nga wuutuma ci mbindeef yi nga wuutuma ci mbindeef nekk sama témoin yu ëllëg ñu xam ne man envoyé naa ay prophètes ñoom pour ñu xamal leen lan laa bëgg ak laa lan laa bañ ah? waaye itam maa la envoyé pour ngay ngay bégle di xuppe borom xam-xam day bégle day xuppe mm-hmm. borom xam-xam day alerte dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam leeral ko ne man a mun ra'a minkum munkaran fal yughayyiruhu bi yadihi mm-hmm. fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi nee na képp ku gis loo xam ne mm-hmm. jaaduwul nan ko dénoncé nan nga ko dénoncé ci sa làmmeñ wala nga soo ko ci sa loxo wala nga métti ko ci sa xol kon yàlla subhaanahu wa taala wax na yonent bi wax na cheikh da doon jàngale da doon alerte balaa dara xew ndax buñ ne dara xew na trois fois war na am explication boo xamante ni borom xam-xam yi war nañ ko bàyyi xel mm, kon nag loolu moo doon kàddu yi incha allah sëriñ Mor Diosi Si. tabaarkalla porte parole famille imam Cheikh Tidiane Ndao. jërëjëf sëñ bi ñu ah, kenn ci ay avocat rek daal di euh, rapproché mu wax. waaw li ko rek maître daal wax. mu nga goog incha allahu wax nañu ni alhamdulilah rabbil alamin donc wax nañu ni. Euh, ñaar yëf lañ leen doon toppee mhm. benn bi nag nee nañ amul mhm. muy dàq nañ ko muy offense bi léegi li nga xam ne moom la ñu saxal moom mooy division de fausse nouvelle donc loolu la ñu saxal moo tax ñu tëj leen euh, parce que procureur bu parti bi passé dafa taxawoon wax ni 6 mois léegi nag juge bi moom li mu dogal mooy trois mois ak 100 mille francs yi yooyu la mujj saxal ñuy wax rek nii encore une fois ñii nga xam ne tey ñoom la ñu jàpp liñ leen di waxal ci réseaux sociaux yi ñu ngi ñaan ñu bàyyi ko mhm. parce que li wér te wóor mooy ñoom demandé wuñ kenn excuse parce que ñoom ci li ñu war a nekk lañu nekk kon nag ñu ngir jëm yàlla yéen journalistes yi ak ñeneen ñu dul ñoom jàpp leen na ñoom mësuñu demande kenn excuse kon ñu bañ leen ko waxal tamit ci biir kii yi ñu ngi nangu dogal yàlla comme ni ko mag ñi daan ñaane fa najjinaa yaa xaaliqa sheytaani min kaydihi wa salle imaani wa jawrati sultaan fii nag jawrati sultaan moo fi feeñ jawrati sultaan feeñ na fi waaye wal jiiraani tamit feeñ na fi asalaamaaleykum wa imam euh, waa ba ba mhm. parce que nangu ñu benn yoon mu wax gis ngeen ni mhm. euh, amaat na li nga xam ne non mi ngi ñëw après mhm. amaat na xam ne moom mooy volonté ñaar ñëw di wax li nga xam ne moom mooy euh, sénégalais yi pour lépp li nga xam ne moom moo jëm si li nga xam ne moom mooy procès dégg ngeen euh, li ñu mën a jàpp mooy ki nga xam ne moom mooy imaam Cheikh Tidiane Ndaw ak euh, euh, Ba Jaxate teg nañ leen loxo ba trois mois mhm. ferme ak amende bi nga xam ne nag dañ ko war a fay cent mille francs waaye offense bi nga xam ne nag moom lañ doon leen doon toppee maanaam procureur yokku na offense bi mu xam ne ne bind na ko li nga xam ne nag moom mooy bi ñu leen doon toppee bàyyi nañ offense léegi nag dañuy leen di topp ci li nga xam ne nag mooy wax ay kaddu yi nga xam ne nag maanaam warawul ak li nga xam ne moom mooy dëgg bi mhm. en attendant ñu xaar maître mu ñëw jàkkaarloog ak ñun euh, Albourakh euh, yaakaar naa ne lii c'est une énième fois mhm. ñuy daal di jàkkaarloo parce que keroog tam nii la nii la nii la demee woon ba mhm. guddi ñi ngi euh, ñi xam ne nag ñoom ñoo ànd ak Bah Diakhaté ah, di saaga journaliste di leen wax lu ne tey itam répété waat nañ ko te ñu ngi ñu ngi lancé alerte ñi nga xam ne nag ñoom ñooy suñu kilifa yi ñu ñuy yebal sur le terrain nañu wax ak qui de droit ñi ñi li nga xam ne nag mooy xupp yi nga xam ne ñu ngi ñu koy def ah, ndax taxaw nañ fi ni dañuy saaga dañuy wax lu ne keroog tam loolu moo fi amoon guddi mm-hmm. euh, ba bëri na ci li ñi nga xam ne jot nañu jël seen euh, matériel yi ñibbi mm-hmm. nañ bàyyi xel bu baax a baax ci li nga xam mooy protection journaliste yi mm-hmm. parce que déjà fii ni euh, rassemblement la xëy na ku ñu songul ci rassemblement bi boo leen demee ba fi ngeen di jëlee ay oto wala que ça soit taxi wala seen oto bopp di dem parce que keroog gis nañ exemple waa Sénégal bu ñuy génn Sénégal otom bi muy génn fare lañ ko carré ci buntu tribunal bi fële ci beneen côté bi di leen saaga di leen wax lu ne il a fallu que police daal di intervenir ci la ñuy bàyyi oto bi génn donc ñu leen di alerter ci kàddu maître voilà en attendant ñu jox euh, kàddu gi maître.